salaam salaam les chers téléspectateurs de la 7TV télé bi ñu nuru ba nopp di ñu dajale xam ngeen ne koor gi yëpp dañoo ànd ak seen émission bi di ëttu diine yi nga xamante ne semaine bu nekk dañuy dem si benn këru diine goo xamante ñoom ñoo fi bokk wala ñu dem si yi nga xamante ay bërëb yàlla la fu mel ni fi ñu taxaw tey muy Masalikul Jinaan du jumaa joo xamante ne nii macha allah wax képp koo xamante ñëw nga ba fii rek di nga xamante na borom ba na ñu tabax ko nag si construction bi 2012 yàlla def mu terminé 2019 le 27 septembre 2019 di àjjuma euh, borom mbégte bi ñëw fi ñëw fi inauguré ko. àdduna yëpp ànd ak ñoom mu nekkoon mbégte si nit ñi si jaamu yàlla yi nga xamante ne tey fii nga xamante ne fi la ñu taxaw muy digg Colobane di bokk si xolu Ndakaaru fi la ñu fas yéene ñëw ànd ak nit ñi nga xamante ne ñooy seetaan émission ëttu diine yi waxtaane borom Touba kan mooy borom Touba li mu xamante ne moom la defal suñu borom xaadimul Moustapha moom mi nga xamante ne moom suñu borom fayee lii nga xamante ne taar bii di bijoux nekk si Afrique si àdduna wërngal këpp moo ñu nekk Masalikul Jinaan fas yéene ànd ak yéen si émission ëttu diine yi si biir 7TV nee koor gi yëpp nii lay dem voilà Kébé ñu daal di wéyale rek daal di dugg def suñu visit si biir mosquée Masalikul Jinaan fa seenee ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk waaye kenn si nga xamante ne mën nañ ne doom la si kër gi ah jëriñ la si kër gi moom la ñu fa seenee àndal tey si émission bi muy Abdou Khadir Fall sëñ Abdou Khadir ñu ngi lay ziar bu baax a baax. delloo ziar soxna si. tey waa 7TV dañ leen seet si si émission ëttu diine ji. waaw xanaa di leen nuyu. di nuyu vraiment seen téléspectateur di nuyu waa Sénégal di ñaanal sëñ Mountakha yàlla yàggal ko fi te wéral ko ak mbooleemu jullit rek di nuyu sunu jëriñ Alaaji Mbàkke fay nga xamante ne moo ñu ci liggéeyu Masalik bi mais également di nuyu euh, imam Basirou Lo mi nga xamante ne mooy imaamu raati bu jumaa ji tey émission ëttu diine bi dafa ñëw Masalikul Jinaan ñu gis ne benn bijou la bu nekk ci Afrique on peut dire ñu ñëw fi tey bëgg a def visite émission ëttu diine bi nga xam ne koor gi yëpp 7TV daf koy ànd ak téléspectateurs yi boo ñu doon xamalee un peu ci histoire jumaa ji nga xamante ne moom la ñu ñëw tey. waaw jumaa ji moom euh, peut-être de façon ramassée li ma leen ci mën a wax rek mooy jumaa la joo xamante ne da doon euh, ci yéene yi Sëñ Tuubaa amoon la ci ci ci Ndakaaru. donc yàlla def ñu ñu jëmmal ko euh, maintenant jumaa ji mu ngi toog ci superficie boo xamante ne mat na hectare hectares euh, cinq cent euh, surface bâtie bi rek c'est sur un hectare donc li nga xam mooy tabax bi rek jël na dimension am c'est sur un hectare maintenant daanaka tabax bi dure durée bi sept ans la juróom-ñaari at ndax on l'a démarré en 2012 l'effectivité des des travaux on démarré en 2012 et puis euh, inauguration bi ñu ngi ko def euh, le en en 2017 xëy na ci kanam dinaa leen booleeg euh, sëñ Babacar Mbaye nga xamante ne moom dina mën a dugg exactement ci historique bi mooy idée bi fu mu jógee les différentes péripéties ba ñu jógee ci terrain bu njëkk bi ba dem ci deuxième terrain bi ba également terrain bi nan lañ ko découvrir ak nan la alaaji baax la ne ne fii la ak yooyu ak vraiment tout ce péripéties yëpp daal donc dina leen ko mën a wax mais d'une façon très ramassée loolu mooy euh, solo jumaa ji nga xamante ne euh, da doon euh, bëggu sëñ bi te vraiment murid yi à travers d'abord sëñ Saliou mais après bi sëñ Ba alaaji Baara ñëwee moom it mu mu mu mu mu def démarrage bi après sëñ di Maxtaar ñëw voilà def ci lim ci def vraiment def ju am solo ba daanaka bi mu fiy jógee rek mënoon nañ sax ubbi jumaa ji euh, waaye noonu la ko yàlla dogalee après sëñ Mountakha ñëw nag vraiment euh, ubbi jumaa ji ce qu'il faut diir que mooy nag c'est sëñ sëñ Mountakha moo nekk depuis le début ba à la fin moo nekkoon ci jumaa ji ndax moo doon jëwriñ ji donc fi nekkaloon sëñ Touba rek moom nga jiitaloon depuis sëñ sëñ Saliou donc moom it muy disons son œuvre moom daal de façon ramassée loolu lañ mën a wax si jumaa ji. macha allah borom mbégte bi moo ko inauguré kon nañuy ànd ak yow xuus daal di dugg si biir. لا زوال ابدا في كوني يا البديع عجبا لكوني إلا الذي من الله يوسف عقلك وبي فسوق دلني الله ولا الله بلا خابت غلاتي مع الغسادي وسمني خس من عكساني وغالي البايبي زبورا تجارتي لدينا الزبورا لم ينولي مبا الملاو فلا ولا إله إلا الله يقود لي بلا waaw jëwriñ ñu ngi si biir jumaa ji nag mhm. waaw euh, voilà fii nag mooy mooy la grande salle de prière nga xamante ne daanaka mën na jël huit mille personnes ah, euh, daanaka par àjjuma moom day day day fees ba ñeenti saal yi nga xamante ne annexe yi ko séq aussi day day fees partie jigéen yi moo nekk ci ginnaaw également daanaka day fees dell daal plus l'esplanade donc bu bu feesee daal dans les kii on a on euh, jumaa ji day accueillir trente mille personnes. mais ñu gis mosquée bi euh, architecture bi ñu ko defaree mu nekk lu yéeme ku ñëw ba ci biir gis ko taal bi fi nekk macha allah euh, ñu dépensé si nag ay milliards lu jeex. Mm-hmm. waa c'est vrai liggéey bi moom euh, metti woon na parce que c'était pas facile waaw ah. vraiment ci biir liggéey bi on était confronté à beaucoup de situations de problème technique yoo xamante ne xëy na euh, ni ko jëriñ di waxee rek xëy na xëy na sëñ bee ko doon inspiré waaw ba nga xamante ne on a pu les dépasser mais comme ni nga ko waxee nag architecture bi moom euh, vraiment c'est unique et puis même les pièces boo seetloo pièces dañu. d'ailleurs sax looloo tax mu xawoon na gën a yàgg parce que jëwriñ il voulait ce qu'il y de mieux li li gën waaye pièce bu ne itam mu bëgg mu nekk une pièce unique boo xamante ne boo ñëwee fii nga koy fekk xanaa kay après xëy na ñeneen ñi voilà yóbbu ko pour ñu defaral leen ces ces de pièces donc looloo tax même boo seetloo ci couleurs yi ça a un peu révolutionné même ni ñuy ni ñuy tabaxee ak ni ñuy décorer jumaa Sénégal boo seetloo bi ñu bi ñu ubbee Masaalik ak léegi euh, jumaa yi ñu fi ubbiwaat yëpp c'est les mêmes couleurs la ñuy la ñuy reproduire ah. donc loolu aussi ñu ciy sant yàlla waaw ñu ciy sant yàlla bon sa prouve rek vraiment liggéey bi ñu def euh, rafet na taaru na waaye également neex na jullit yi pour décor également bi nga xamante ne fii imaam di jullee boo ko seetloo aussi c'est une pièce unique ah boo xamante ne c'est c'est c'est c'est bon doy na waar daal ah donc voilà euh, ba nga xamante ne mm, comme ni ma ko waxee woon rek <coughs> jëwriñ il avait vraiment envie def loo xamante ne lu lu lu mucc ayib la waaye loo xamante ne aussi ku ko gis xam ne fii euh, euh, Masalik la am. def nañ ci yéene daal jëwriñ Mbacke wu fay ñu ngi koy nuyu bu baax a baax kii dama lay bàyyi nga daal di xuus jëluma mbir mbar beeg yi àndal yëpp tabaarkalla macha allah ndax taar bi nga xam ne moom moo ci nekk.

léegi salle bi ñu dugg si fii yëpp si biir jumaa ji la ñu gis euh, ñu lal kaas yi di waajal ndogu bi chaque jour nii la ñuy waajale ndogu bi. waaw ndogu yi moom comme ni ngeen ko gisee euh, bés bu ne rek nii nii lañ koy nii lañ koy waajalee ndax euh, dinañ defar bés bu ne 3500 ndogu du lendi lundi au vendredi mais week bi nag dañuy monter en puissance ba ba 6000 ndogu daal waaw nga xamante ne boobaa même ci biti dañ koy lal. dañuy lal ci biti lal saalu jigéen ñi lal aussi ñaari salle VIP yoo xamante ne fa la ñuy yóbbu mag ñi ah. voilà y a aussi une autre salle privée boo xamante ne imam comme ni mu koy defee chaque année day invité imam yeeg de temps en temps mu am borom xam-xam bu mu invité nga xamante ne ñoom it fii la ñuy ñëw di ndogoo. mu ngi noonu gis nga li yëpp si xéewal yi la tabarkàlla macha allah gis ngeen kaas yi ni mu taar mu mel ni même ku nekk Dakar ba heure dog du jot sa xel day ñëw si Masalik da ngay ñëw ne xaaral ma dem lu ji voilà mi ngi noonu ci kanam tuuti dafay fees dell surtout sunu euh, mbokk étudiants yi nga xam ne jëwriñ première année bi jumaa ji paree rek ñu koy def ndeysaan il avait appelé les étudiants parce que xam ne li ñuy daj ndax jaar na si pour ñuy ñëw fii di di ndogu ah également ambulant yi ak certains commerçants ndax ñu ci bëri xam nga fi ñu dëkk dafa sori donc ñoom ils préfèrent ñëw ndogu ba pare ba julli timis doog a mën a nag ñibbi seen kër waaw plus ak xale yi nga xam ne dañu nekk si daara yi daara yi nekk un peu partout tout autour ñoo bi ndeysaan fii la ñuy ñëw di ndogo nga xam ne sëriñu daara bi la ñuy àndal bu ñu ñëwee ndogu daara bi yëpp ndogu bu ñu jullee timis doog a doog a dem également daal di wéyale ba tey rek suñu émission ëttu diine ji li ñu découvrir fii si Masalik moom macha allah yaakaar naa dal na xel te te aussi sedd na xol. waaw liggéeyal sëñ Touba rek. xam nga d'ailleurs vraiment on reçoit beaucoup de touristes. léegi maintenant euh, disons dafa bokk si. Euh, euh, vraiment le matériel urbain de Dakar ba nga xamante ne touristes yi à chaque fois nit day jóge fu nekk fu ne pour visiter vraiment la grande mosquée Massalikul Jinaan kon ñu wéyale ba tey rek nga wax ñu fan la ñuy demaat. voilà léegi dañuy dem euh, gis euh, sëñ Babacar mbay comme ça mu ñëw ak yéen sur l'historique comme ni ma ko waxee woon sànq pour euh, suñu mbokku téléspectateurs yi gën a xam Massalik fan historiquement nan nan la ñu def ba taxawal ko. sëñ Babacar responsable organisation Massalikul Jinaan lépp loo xam ne dañ koy organiser ci mosquée bi moom ci ay loxoom lañ ko teg moom mooy doxal lépp. bu ko defee tey moom lañ fas yéene àndal nag si biir émission ëttu diina ji sëñ Babacar maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay nuyu di la fay bu baax a baax a baax a baax. téléspectateurs yi seetaan nekk un peu partout dans le monde bijou bi nga xam ne moo nekk biir Afrique. Mhm. lépp di liggéeyu sëriñ bi. Mhm. nga ñëwal ñu tuuti ci historique gu jumaa ji. Mhm. waxtaan ñu itam ci borom Touba ndax mbokk yaa ngi toog di seetaan émission. waaw jërëjëf di wax rek ne ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant ki ñu amul lu dul moom muy cheikhul xadim xadimal Mustafa tey ñaanal ki ko toogal tey di cheikh Muntaxa yàlla dolli ko fa yàggal lool ci wéral ko ñu ngi nuyu bokk yëpp di leen sant di wax ne fii ngeen ñëw mooy Masalikul Jinaan Masalik nag historique bu rëy rëy la ndax damay ragal ndax dana mën xaj ci benn émission ndax lu yàgg la ndax programme Serigne Touba yàlla du ko tas mukk ci àdduna mu mel ni bi ñu laataa ñëw fii dafa am fu ñu nekkoon muy fee ñuy wax guy Senghor te tugal def fa seen jumaa ji foofu murid yee ko moomoon nekk fa waaye dañ fa def julli it rek ba bi ko suñu mbokki tukulóor yi sàkko waa Medina Gunaas yi ko sëñ di tranché dafa wax ne sunna du war ci kaw farata te la ngeen foon def rek mooy sunna julli it ñii fi bëgg ne def farata nag ñoo moom pakk bi bu bu ma leen fi gisati daan fay jële murit ñu dem fii ci xayma bi may nekkee ci xayma bi it mu nekkoon 4000 mètres carrés ñu jox ñu ko alaaj Mamadou Dioum moo ko njëkk a miire ñu nekk ca nekk ca nekk ca nekk ca waaw ba jamono alaaj Sëriñ Ngom mu di représentant doon jàmbaar yàlla na yàlla doon leeram ci barkeem foofu daal la ñu ne ba bi fi alaaj Sëriñ jógee alaaj Njaga alaaj jageke yi yor ko ba mit yàlla na yàlla doon leeram tasu ci barkeem ay mag ñoo xamante suñu way jur la ñoo xam ne ñoo liggéeyal sëñ Tuubaa ba jeex tàkk euh, ci la dajeeg ñëw alaaji baara ci xilaaf ak sëriñ Tuubaa gi muy eeru sët yi muy nu génne ko moom alaaji baara yàlla na yàlla doon leeram tasu baara nag moo tànn alaaji mbàkk yu fay bind ko leetar jox ko ndigal yi mu ko jox mooy daa am loo bëgg ci Dakar te yaa ko man am naa chance su teewee loolu ndax ba nag bataaxal bay ñëw bisub gaawu chauffeur Omar Sène indi ko ak Xaadim Dia doomi Mbay Dia mu sëriñ Fallu yàlla dimbali na ma ba maa nga teew keroog man mii la ko jox ne ma dajil laatir bi sa xool ko la ca laaj baat def maa ko njëkk a ndax maa ko njëkk a jàng di ko dégg alaaj ne ko daa am lu ma bëgg rek te mën nga ko c'est un samedi le dimanche alaaj baat a ñëw fii euh, ci altine jëla ñu ànd ak moom ñëw fii ci terrain bi visite bu jëkk bi fii ñëw ci bii ànd nag boo Papa Diop président Papa Diop moom mooy président du Sénat ak alaaji Modou Mbaye Samb bi nga xamante bi maak moom ak mbàkk yu ñoo gis barab bi ñu koy sos muy bésub àjjuma ñu ñëw fii bi falaaj laaj baara xool ko xool barab bi fekk lii lépp di dex ak dex la woon dex nga fekk dëloo dafa naan yéem sax lu ñu fa mën a taxawale lu mel nii waaye bàkk yi comme gaynde la te xam na suuf te am na pëstéefam ëpp na loolu bi mu ko xoolee dama fii rek a baax booba bi ñu jëlee fële ci 4000 mètres carrés bi ñëwee fi président Abdoulaye Wade jox ñu ko mu nekk 40 000 mètres carrés kon mu ëpp ko fukki yoon di 4 hectares maanaam nag architecte bu ñuy wax euh, Daouda Diop mu nekkoon fii Grand Dakar service euh, fiscaux bu Grand Dakar ñun ñoo génne 4 hectares yi moo yoroon cadastre foofu. ñu àndandoo di ko taxawu ba yàlla dogal lii bi ñu ñëwee bu nekkoon un samedi alaaji baara moom ñëw fi altine bi mu xoolee barab bi jógee fële ñëw fii xool ne barab baa ngi nii ne mbàkk yu tey la lan mu ne ko altine mu ne ko bu àllarba ngeen tàmbali kuy ñëw fekk leen kuy dem baleen fi on était à 17 jours de la tabaski fukki fan ak juróom-ñaar moo jeexee ba ñu fay tabaski alaaji baara dañ fi julee tabaski ci dex ak dex euh, keroog bàkk yu lijjanti na lu mat set moto pompe yu mag ñu branché yëpp wut groupe électrogène bu rëy rëy rëy di ko versé ci réseau bi lu xaw a fedd rek waa séddee sotti lu ci suuf fii boo gisee remplage bi ci rek ëpp na cent mille mètres cubes de sable sotti nañ ko fii lu ëpp cent mille mètres cubes de sable alaaj bàkk yu fay sotti na ko fii dex la woon dex la woon amoon na juróomi teen yoo xamante ni man la ko sant maa ko boo boo gasee un mètre jot bi léegi nag loola implanté nañ ko ba am deux hectare ma balisé ko ñu woo xel comme bâche ñu montel ñu fi structure ñu def fi julli tabaski bi ñu fi tabaski ba pare alaaj baar nañ fi gàmmoo mais bi gàmmu gi jotee léegi nag liggéey war a tàmbali mu ñëwal boppam teg si xeer bi nekkoon le 5 décembre 2009 ànd ak le président de la république Abdoulaye Wade bi ñu xamante bi yàlla dogal na loolu euh, liggéey bi nag tàmbali. liggéey bi nag bi mu tàmbalee problème sans waaj yi mooy gaynde alaaj bakk yu fay euh, nga xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek mooy li ko ñor booba li mu njëkk def mooy étude de sol ndax moom xam na affaire bi ndax am na expérience ci liggéey suuf mu dem jëli sarek ñoo gën a habilité ci ne xool étude de sol benn société bi nekk ñu ñaan ko sarek sarek pendant presque un an ñoo ñëw def ay prélèvement ni ko yóbbu France ak seen laboratoire di xool ba ci ne conclusion li fi mbàkk yu bëgg a def fab un hectare cinq cent teg ci jumaa ji foog mu am au moins plus de mille micropieux micropieux lan la fépp fu poto taxaw rek da nga koy bënn ba mu dem vingt six mètres ci suuf ba romb napp créatile bi nga doog faa teg poto bi doo ko tabaxee ciment socosim bi ak ciment maritime koy tabaxee ak fa lépp moom lañu ko def benn micropieux bu ci ne ça nous a coûté un million cinq cent les mille font facilement ak yaa dolli ko waaw ah, te ça fait pour suuf si baax ba dëgër loolu liggéey nañu ko pendant trois ans dernier micropieux bi sëriñ Mountakha Bassirou bi xalifa général tey te moom ma doon jëruñu Alaaji Baara moo ko dugal si moo ñëw dugal si ko fii dernier micropieux moo ko duggal si euh, ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax pandant trois ans kenn xamul liggéey bi ndax kenn gisul luy jóg ñu naan analu mbàkk yi fay def nangam nangam fekk pendant trois ans li ñuy liggéey yëpp suuf la jëm lu jëm suuf nag ba du ko gis mu ko tegee ci kaw war a yëkkati matul juróom-ñaar ak jumaa pare kon loolu gaaw na lool waaw bu ko defee noonu lañ ko def ci xolam bu rëy bu fa am un hectare cinq cent teg ci jumaa ji léegi nag euh, ñu war a tàmbali nag léegi liggéey bi fekk na ba micropi yi pare na léegi liggéey bi rek ànd ak CDE ñu teg nag commencé jóg nga xamante bi ñu am daanaka 3 4 ans daanaka alaay Cheikh Sidi Moukhtar ñëw na fi ñaari yoon ba ñetteelu yoon di seet si liggéey bi euh, booba am na pas-pas lool ba yaakaaroon ne mën na sax fekkee waaye suñu borom dogalul loolu ndeke Alaaji Baara ma ko sosoon dum moo koy fekke sos nga sax ëpp na ko jiitu na ko ndax Serigne Saliou Mbacke moo ko digle woon te ba ñi nekk ci bi yëpp di digal Serigne Saliou la woon ak jumaa ji euh, Alaaji Baara ñu fekk si ko ci loolu Cheikh Sidi Moutar ñu fekk si ko ci loolu ndeke yoo ki ñu wax Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou moo ko nar a inauguré fi nag l'islam ñëpp pour une première fois toute l'islam ba l'église nuyu si lañu sëñ Muntaxa fekk ko Colobane ba tax na kon loolu mooy li nga xamante ni moo doon mooy liggéey bi ñu nekk ci nag ci loo xamante ni euh, kenn mun la woon wax ne ma doon imaginer ne mën ngaa fekkuk dex transformé ko teg fi lu mel nii jumaa loolu il faut être un Mbackiyou Faye pour le faire waaye ñu koy sant yàlla bu baax ko ñaan yàlla yàlla gën ko taxaw gën ko jàppale gën ko dëgëral lii daal euh, en grosso modo mooy liñ fi def ba jumaa ji pare nii xëy na liggéey bi des na nag dans Esplanade ba ci kanam yéen a fi jaar yéen xool ñuy waajal Laylatul Qadr yi di waajal it iftaar bi ñuy def muy ndog bi nga xamante bi moom moo koy invité chaque année kilifa yi muy euh, les ambassadeurs les membres du gouvernement ak kilifa yu bari Cheikh Bass Abdou Khader moo koy présider chaque année lii ci la ñuy waajal nii ci la ñu foofu dañ ko war a dañ ko war a liggéeyaat ba dootoo teg sa bët ci suuf ca ginnaaw it institut islamique baa ngi taxaw bi ñuy xaar te ak salle euh, de conférence bi nga xamante ni bi ñu xoolee fii ci gën a rëy. buy euh, grand théâtre buñ ko xoolee daanaka euh, deux mille places la ñun on va pour deux mille huit cent places moo tax euh, ñu ngi taxaw ci loolu ak résidence yi nga xamante war na ko fay defaat tuddee ko kër Serigne Touba pour suñu hôte de marque war lépp ci biir waaw projet la bu mu def moom ba teg ba fisale ko incha allah fas na ko yéen a exécuté dañuy dem rek bolo bolo di ci dem ak waxtu wu digal rotee rek. ñu accéléré loolu ndax moom bu ci def dara te tàgguwul sëriñ bi ne lii laa bëgg a def ba sëriñ bi ne ko acca ñu doog a lii daal ci la ñu nekk nii fii ñu toog mooy salle bi nga xamante ni fii la imaam bi dog see incha allah barab bee fee la imaam di toog ànd ak ay kii imaamu barab bi ak euh, ñi yor wàllu diine ji les religieux ak seen i bu ñu amee ay ordamar fii la ñuy dogee li ci des le grand public ñu ngi dogee fii ci mosquée bi chaque jour daal ñu prévoir 3000 3 3 3000 plats yoo xamante ni. 3000 dogu yoo xamante ne ay kit lay doon xam ku ñëw da nga ci mën a dogu des fois du ko mat des fois ñu am 2000 personnes des fois 2200 fois même sax am na jour ñu am ay 1500 1900 personnes ça dépend ci contexte bi ak ni muy dajal waaye euh, jàppal ne bu ñu matoon 3 minutes bu ñëwee du ñu jaaxle ndax lépp lu ciy waay ak matuwaay alaaj mbàkk yu fay jox nañu ko ba ñu war ko cee def incha allahu taala mu nekk loo xamante ne Kébé lu kéemaan la ndax bu déggee histoire mosquée bi fu mu tàmbalee nekk dex ba tey ku fi ñëw dugg da yéemu ñu del si waat nag si ñaari guddi yu Ndakaaru yi waral jëf yi waaw xam nga loolu moom sëriñ bi waxal na ko boppam Dakar rek la ma sa wax ne su ma xalaatee sama ñaari guddi yi ba nga fetal jaar isa sakartu salikal mabita wa salikal amira sa sabota fii rek la ko xalaate Dakar gas nañ ko suul ca Gabon fetal nañ ko parachuté nañ ko ak ay bomb suul nañ ko lu ne def nañ ko sëñ Tuubaa waaye mastal benn yoon mastal xelam xalaat ne ma jaar waaye Dakar nag épreuve bu métti la woon mu nekkoon le le 19 septembre 1895 mu agsi fi jóge Ndar euh, ñu taxawal ko ci wagon ba Dakar nga xamante ni may ñu ko fu mu toog dañ ko taxawal ci wagon ba Dakar mu ñëw kooram nga ñu wàccee fii. Euh, ñu jaar la ko rue Messagerie moom la ñuy wax ca Môle 2 moom la Cheikh Moussa Ka di wax waaxu Moussa Siri rue ba ma tudd rue Messagerie war a jëm ca néegam boobee nga xamante ni fa lañ ko torturé waxtu timis muy waaj pour dog ñu ne ko kaay ñëw dindi kaalaam yaag sumbi dàllam ya def ko ci néeg ba dañ ko préparé non seulement néeg ba xat na salte na dañ ci def lépp baax na waaye sëñ bi wax nañu bi mu tegee tànku di joram bi ràbb gi njëkk a tëb dafa fël ba génn am na tubaab bu ci def benn correspondance di ci yéemu di wax ne di ko yéem ci Sëriñ Tuubaa mooy bi tànku ndijoor bi tegoo ràbb gi dal ko normalement da nga da nga sa réflexe ma la woon nga war a delluwaat ginnaaw tuuti waaye nee na tànku càmmoñ baa nga yàkkamte fekk ndijoor bi ci biir ndax jàmbaar ga loolu nag la fi nekk ba suñu borom yëkkati ko fi le 21 septembre 1895 mu jaar fi dugg ci poor bi mool a booba fii dragué ko poor bi kenn dragué ko kooku ndax euh, Pernambouc bi ko war a jël si mënu fi woon ne benn bateau bu doon euh, yëpp cacao di dem Brésil euh, biñ ko moom la ñu affrété moom la France affrété mu ñëw Nantes ñu waajal ko mu ñëw fii mu ngi nekk ci large de Gorée yi fa la taxaw dañu fab benn bateau bu ndaw benn benn genre vedette yooyu dañ dugal suñu toit yóbbu ko ba ca gaal googa mu doog a mën a embarqué foofu ci ville de Pernambouc koy màggal fii mooy tudd julli géej gi. ñu koy may te ajam sonn xuba jiite liggéey boobu fii ci jàmmalaay julli ndax xat-xat ak tartar yàlla fay la gàmbi laa ñaan goo xamante bi jëmi saal bi rek dix mille personnes xaj nañ ci ci mën a julli loolee yàlla fay na sëriñ Touba yàlla fay na sëriñ Touba lool lool lool waaye nag sëriñ bi kullu yeti mu'jizatun taa xarat wa xayru xayraat la dehi du xarat nee na man sëriñ Bàmba sama lépp mu'jiza la lan mooy mu'jiza mooy pouvoir bi yàlla daan jox ay yonent ñu koy jëfandikoo ku dul am yonent mënoo jëfandikoo ci mujjiza mujjiza mooy euh, pouvoir benn yàlla daan jox ñu koy jëfandikoo sëñ Tuubaa dafa ne sama lépp la wax moom mujjiza la sama lépp kon kooku euh, yàlla fay na ko lool wax dëgg yàlla ci ngoram ci jàmbaaram ci pëstéefam ci bëggam lu baax te mën ko wut ci bëgg yonent bi sallallahu sa wasallam ba yebalewu ko dara dara dara ci jeex tàkk suñu borom baamu lu ko jaar kooku euh, boo ñëwee Masalik na nga xam jëf nga mu jëfaloon sans borom moom la ko yàlla fayee lii incha allah. xaadimal Mustafa. kenn du moom Balla Saburi sëñ Bàkke Baabam kenn du xaadimal Mustafa kenn du moom moom Sëriñ Tuubaa kenn du moom. ñu ngi lay jaajëfal baax jërëjëf ñu ngi leen di fay bu baax a baax a baax tey sant te xam ne fii ngeen ñëw tey suñu xol sedd na lool xolu jumaa ñëpp sedd na waaye xolu Alaaji Mbàkke yu fay bii suñu kilifa di suñu jëw bi ñu xolam sedd na lool ci seen ñëw fi ndax lii rek la bëgg ko ñëw xool gis ne lii ñu fi def lépp sëñ Tuubaa rek tax ñu ko fiy jëf ndax moom nopp lu wu ci at diwu ko ci lu mu am def na ko ci lu mu am rek def na ko ci euh, bi fi ñi ko fi jiitu nekkoon ku mel ni alaaj sëriñ Gom ku mel ni sëriñ alaaj Njaga Gay lu ma sa xew bu digga rotee dañ daan fab làmp seen poste teg ne kaay leen ku ne ñëw ba mu mat te matal nga la ci ëpp ci poosam la daan jóge bañ koy def ca boobu jamono moom nag bi mu yore liggéey bi ñun cotisé tuñu dara day ñëw rek laaj la coordination woo alaaj Sàmba Jaw mi la ne ko xool leen liy doy ñu def évaluer budget bi bu dee trente millions bu dee vingt cinq millions bu dee cent millions ñu wax ko ne ko lii la bu dee ab la ñuy liggéey ba ba tey luy xalaat coordination xalaat ñu def une réunion ko ne tant de millions la loolu la ñu toll la ñuy jox ne dem leen kenn fekk ku ci liggéey bi kon nag euh, ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaan yàlla yàlla gën ko jàppale te ko moom El Hadj Bakio Faye sant nag yéen waa 7TV ci seen ñëw gi tey ñaan yàlla mi am tey yëkkati. yàlla yëkkati seen télévision bi ba mu tiim télévision yëpp waaw ñu ngi leen di bu baax leen gërëm allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam jërë ngeen jëf voilà mbokki téléspectateurs yi ñu ngi nekk toog nii ci bureau imam Khadim nekk adjoint imam ratib bi nga xamante ne mooy grande mosquée Massalikul Jinaan bu seenee ànd ak moom rek euh, waxtaan ak moom comme moom lañ fi fekk mu wax ñu tuuti historique mosquée bi ak nan lay demee ak activités yi nga xam ne mu ngi fiy am religieux yi yëpp euh, imaam Khadim Lo ñu fas yéene si ànd ak moom ñu ngi lay ziar bu baax a baax. Ah. ok asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi jàkkaarloog ñun ak fu ngeen mën a nekk ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel ci weeru keeru tedd wi ñaan yàlla nangul nu jaamu yàlla yi te yàlla dolli xéewal euh, dolli ak dal dolli jàmm. Euh, comme ni mu ko waxee fii Masaalikul Jinaan defe naa ne bi koor gi tàmbalee ba léegi waaye lu ko jiitu itam ay activités yu am solo lañ fi amal euh, ci wàllu ginnaaw julli gi euh, am na ay njàngale ci diine yoo xam ne ñu bare bari dañ koo tàmmu am na itam ñoo fi taxawee njàngale moomu ci def ay bayaan li ñu tuddee bayaan te mooy balaa imaam be euh, julli ajjuma ñu def ay waxtaan yu am solo ci thèmes yu wute yoo xam ne jamono laaj na ko waaye itam euh, ci biir koor gi nag ci la activités yi di ëppee euh, démb rek amoon na formation bu ñu doon defal noddukat yi ci jàkk yi yëpp yi ñuy wër ak yeneen jàkk yu bare bari yoo xam ne mat nañu 35 ci ay bilaal ndax xëy nañu bari dañu jàpp ne rek nodd moom yomb na waaye fekk na dafa est-ce que war a jàng war ko xam di ko defee niñ ko bëggee incha allah samedi bi ñu jëm tam war nañu woo def euh, formation pour imam yi waaw ay imam yoo xam ne dañ fi dajale euh, bokk bokk ak ñoom def formation gën a euh, taxaw dëgëral taxawaayu imam daal ndax loolu itam defe naa lu ci am am solo la ci loolu itam ni ngeen ko gisee gis ngeen ndogu yi am na ay conférence yu ñu fi def samedi ak dimanche itam lu bokkut ak njàngale moom mu ñu wax nga xam ne bis bu am. waaye itam euh, incha allah dimanche am na programme bu am solo bu ñu fiy def chaque année te mooy distribution de la zakat waaw am na association bu ñuy wax Hikma man maay président bi dañ fi amal euh, joxe azaka euh, comme ni ñu ko doon defee at mu nekk incha allah danañ ko defee fii moom itam dañuy jël chaque année benn thème boo xam ne ci lañuy waxtaan ren nag ñu ngi jël thème fu waqf fu ñu bare bari ci Sénégal dañ koo xamut. te muy lu am solo amal askan wi solo amal diine ji solo waaye mel na ni taxul ñu xam ko lool association bi nag li ko taxoon taxaw loolu bokk na ci mooy xamle ko incha allah thème bi ñu fa bëgg waxtaanee ci sam ci dimanche bi mooy wàllu fu ay borom xam yu mag itam ñoo koy waxtaanee waa auto autorité di fu mi nga xam ne ñoom lañu dénk wàllu tam dana ñu teew ci jotaay boobu incha allah. waaw li euh, ñuy def rek mooy. Euh, képp koo xam ne am nga yitte parce que dañ koy catégoriser am na ñoo xam ne wàllu santé am na ñoo xam ne wàllu bëgg am lu ñu jàpp ba mën a yëngutu liggéey am na koo xam ne daa soxla jënd machine bu mu liggéeyee masalan dafa jàng machine ñaw te amul machine yu demee noonu noonu ak yoo xam ne nag ay sociale la cas cas social yi incha allah yooyu la ñu bëgg bu ñu ci àggee euh, déjà Euh, am nañu euh, seize boo xam ne fa la ñuy déposer demande yi ak fii itam fii parcelle ak fii incha allah euh, demande yooyu yëpp nag moom lañuy def bu année bi ñëwee nii ñu trier ko xool am na yoo xam ne ay daara la am na yoo xam ne waaw comme daal soxla yi ni muy wutee daal waaw bu ci nekk rek ñu seet li nga xam ne daaw masalan am na diirub année at bi yëpp am na benn famille boo xam ne seen ay seex lañu euh, yàlla dogal ñu muy ñaar seen euh, waajuru jigéen génn àdduna ñu waroon leen a toppatoo waaw association bi moo leen jëloon en charge euh, ba at am atum at mi yëpp waaw nga xam ne ñoo leen gàddul seen waaw seen lépp waaw waaw loolu yu mel noonu daal lañ mooy taxawaay bi waaw waaw waaw bi waaw social bi dafay am solo lool yi azaka bi waaw yu bëree bëri daal ci wax dëgg yàlla ci yoo xam ne waaw ñu ko ñëw rek xewlu incha allah hmm. waaw xam naa waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf voilà mbokki téléspectateurs yi gis ngeen émission bi tey ëtt bi nga xamante ne dañ koy def ëttu diine ji nga xam ne koor gi yëpp dañ ko àndoon ak téléspectateur u 7TV yi tey ñëwoon fii nga xamante ne mooy grande mosquée Massalikul Jinaan ñëw def découverte bi def li nga xamante ne moom mooy cosaan bi nga xamante ne moom moo xew si biir mosquée bi yëpp fi ñu ko tàmbalee ba fi mu jeexee ñu ñëw nag tombeek mu nekk weeru koor ba pare berndeek yëpp macha allah ñu àndoon ak Abdou Khadir jëwriñ eh, di kenn rek si alaaji Mbàkke yu fay jëwriñ boobu nga xamante ne ni tabarkalla macha allah liggéey bi ñu teg ci loxoom mu defe ko ba mu mat jëwriñ ñu fas yéene tëj nag comme dog baa ngi jot ñu bàyyi jàllo jàllo yeeg sàll sàll yi daal di dogu ji. <laughs> waaw mi noonu comme ni nga ko waxee rek naa jaañee <laughs> ak gayeen yi fu mu gisatuñu ndax daanaka euh, voilà ndogu jot na waaye di leen sant rek di leen remercier et puis di remercier euh, seen directrice muy soxna Maimouna Ndour fay nga xamante ne dafa am benn anecdote bu fi bu mu def sax ah ma ko ciy sant di ko ci gërëm ndax ci ouverture bi da ngeen fi amoon un plateau léegi plateau boobu nag euh, chaise yi ñu doon utiliser man ma foogoon ne chaise yooyu ci organise si sunu logistique la bokk ma jël ko nag euh, ñaar yi benn bi ma dugal ko ci appartement privé sëñ bi beneen bi ñu tegal ko imam pour buy def euh, ay ay xutbaam léegi nag ndeysaan après par la suite la ñuy doog a xam ne seen seen ay kii la woon seen chaise <laughs> seen TV la mu woo ma ma ne ko ah soxna si leen daal mooy mën a am soit ngeen jaay ma ko. <laughs> wala ngeen def ko addiye ndax vraiment c'est comme que sëñ mu amoon mënatuñ ko mënatuñ ko jébbale ndeysaan mu ree kontaan def ci jàppandal ne daal comme que noonu la demee moom faf na ko def addiye moo nga xamante ne depuis lors vraiment euh, fauteuil yooyu moo fi nekk nekk ci néegu sëñ bi mais également imam buy def xutmaam moom la utiliser kon ñu koy gërëm di ko sant di gërëm vraiment tout le personnel mais di la gërëm yow tamit ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne yaa ngi koy def di gindi nit ñi ci lu bëri ndax euh, man ni ma koy waxee sa émission ni ma ko jëlee dafa mel ni donner information juste parce que da ngay dem ci source ba nit ñi di wax ak xew-xew bu mën a doon nag waaw nit ñi dinañ mën a spéculer mais yow boo demee rek ña nga xamante ne ñoo ñoo ñoo ŋànk euh, li nga xamante ne mooy l'information ñoom ngay waxal directement ñu joxe la bonne information ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla ñu woor wooru jàmm ah euh, et puis yàlla gën fi def jàmm ndax réewu jàmm la ni ko sëñ Touba daan waxee rek jàmm moom moo gën fii ñu ne moo gën fa ñu jëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. rahmatullah dégg ngeen ko noonu Abdou Khadre macha allah anecdote bi mu joxe nag kon suñu fëtee yi mu ngi fii si biir ma junaan ni ma mel xolu TV mel noonu si xolu ñëpp a baax di jaajëfal Kébé mi nga xam ne moo yoroon caméra bi di jaajëfal ñëpp ñoo xamante ne àndoon nañ ci liggéey bi Papis Mbaye ci coordination bi vraiment ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax beneen këru diine la ñuy demaat ci ëttu diine yi ci biir koor gi noonu lañ ko fas yéenee toppee di xuus ba keroog koor gi di jeex jërë ngeen jëf rendez-vous incha beneen yoon